jeneen kilifa joo xam ne ñëwaat na visité jumaa ju yees ji nga xam ne moom la sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou taxawal fii ci diwaanu Porokhane moo di sëriñ Issakha Mbacké moom sëriñ Bassirou mu nekk kenn ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénkoon liggéey bi ñu ko doon saytu ba mu agsi fii lépp yemb ñu fas yéene koo ubbi moom sëriñ Issakha Mbacké moom sëriñ Bassirou bi mu ñëwee ànd naag sëriñ Modou Sahin ak yeneen techniciens yi nga xam ne ñoo yoroon li jëm ci liggéeyub jumaa ji lenn lu ci nekk sëriñ bi saytu ko xool ko xool fu ñu ci tollu laata ñuy àgg ci àjjuma ci bés bi nga xam ne ci la sëriñ bi war a ubbi jumaa ji ba أبا ألي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رضاك يا رافع الدار مرتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله visit بلا انقفال بفضل منك la ko amalee ci biti jumaa ji mbooleem bayal bi nga xam ne moo wër jumaa ji muy esplanade bi fenn fu ci nekk Serigne Isaax Mbacke jaar fa ñu leeral ko la nga xam ne moo fa nekk mu am ci mbégte lool ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne techniciens yi amal nañ ko ci jumaa ji ba liggéey ko liggéey bu mucc ayib waaye santaat ci taxawaayu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke Bachir liggéey bu am solo bi nga xam ne muy ndamal lislaam gi yëpp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 لن ترلا أمدي لخير دهر يا الله أنت يسيب لاسي بال نزامة لخوت فلن أسي من منك يا الله أنت لاسي لقد مغفرة مات يوم برادي عن عنك يا الله